Gallo Tall maa ngi lay nuyu bu baax. fay euh, di la bàyyi nga nuyu tamit. di profito di nuyu ñu ne ci plateau bi. Eh. ngeen ko mais commencé comme fi may commencé eh. toujours. Eh. Euh, di gërëm di sant nuyu suñu kilifa diine yi. commencé rek fi may waxee nag. man guy gërëm gi ma bokk Touba la. Mm-hmm. xob bi ma ciy bokk euh, branche bi ma ciy bokk. Daaru Musi la mais xob ba ma ci la ngee kër Serigne Kalakos Asulo di rendre hommage sama Serigne Serigne Kalakos Asulo di gërëm waa Kébémer gi ma jóge di leen jaale aussi parce que maa ngi koy wax saa rek. suñu hmm. yaay ju baax dafa dafa dëddu. mooy hmm. ñaan képp kuy seetaan euh, émission bi. nga ñaanal ko soxna Nogay Dieng. di tànt ci góor gi si Dieng waaye nekk. Euh, di hmm. waajuru Chérif Alwali Kébé. ñoom Demba aadama Adama Junior. ñoom Issa ku lim juum waaye njaboot gi mu fi bàyyi ñu suñuy mag. donc ñuy ñaan euh, yàlla muñ loo leen ko te yàggal sarax bi seen loxo. donc grand maa ngi leen di jàlle bu baax a baax a baax à travers cette émission. mais aussi di gërëm waa. sama parti waa PDS sant bu baax sama candidat Karim Meïssa Wade mhm. delloo njukkal mon secrétaire général maître Abdoulaye Wade mhm. sant sama grand garde bu ko ci Géejawaay xam na bu baax ki may wax mais it di comme ni ngeen ko waxee rek parce que parfois am ñoo xam ni euh, dana lay jàppale ci lu bari mhm. donc ñuy suñuy nit nitu démb di ay ay jàmbaar ak kër Serigne Saliou poulet du du pied ak euh, vraiment poulet de chair ci naa ko booleeg saa sax ñu am nu def parce que ay jàmbaar lañ ci ñun daal donc Cheikh soyez en remercié en tout cas ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant soxna sama bàyyi ci kër ga mhm. yaay Mohamed mhm. ak xale yëpp mi ngi noonu nit ñuy seetaanee ci Walf TV noonu la ñuy seetaanee aussi ci Solution Info TV ñu ngi jaajëfal ah, ok c'est maa ngi jégalu parce que nag solution Euh, ku fi ñëw te waxoo ci dara ça parce que doo ko seetaan te dama koy seetaan. Mhm. ah non non non je vous grand travail. xam nga toujours ma toll nii leen Walf xaw ma nag Sadio mais solution moom dara dootu ma fi ump parce que lu ngeen def bëgg naa ci bokk ndax la. liggéey bi. Uh-huh. et pertinence bi. Mm-hmm. et puis parfois vous faites des analyses très profondes. Mm-hmm. parfois nag ngeen déconné jëmale sama parti loolu wàll ngeen géré loolu. mais non mais pour dire vrai. <laughs> Eh. vous ko euh, fii su fii sooxe nag ku mu concerné mën nga ci wax li nga soxla. mais yenn saay li ngeen di def dëgg moo ëpp. Mhm. yenn saay ngeen tooñ ma nag man sama parti. Eh. mais mais mais toujours que ci seen liggéey la bokk. <laughs> te soo je crois que dinañ ko mën a gérer. mais amee solution bii la amee solution humour. ah mais extraordinaire bi ñu immeuble bi immeuble bi ñu ngi ciy def lu am solo. Ah. extraordinaire kon day fa dugg di xool ah, solution li nga doon li nga doon def fële ñu lay gis. Ah. leneen loo ci yokk rek gongo parce que c'est extraordinaire vous le faites bien avec la complicité de l'instant vraiment bi ngeen def rafet na trop c'est joli voilà et puis bon seen plateau dafa yanc macha allah c'est-à-dire ne indo bi rek waxal na la lu bari. dëgg lii <laughs> eh, <laughs> bravo. maa ngi lay nuyu di la sagal et puis di la accueillir <laughs> galo galo <laughs> ku baax la ñu koy jaajëfal bu baax a baax euh, léegi nag ñu ñëw ci waxtaan bi li ci jiitu loo xam ne moom moo kenn mënu wax tey te njëkkewoo ko mooy li xew ca Ngor euh, ak lañ cey tuddi ni bakkan daanu na fa ak yooyu ci coowal suuf ban ak président de la république euh, recevoir gi mu ne da koy recevoir ak dal gi mu dala seen xel am na ñu ne c'est trop tard parce que depuis avant Korité ba tey jii ñi ngi ci Korité génn na wax ak askan wi zappé waxu ci mel ni comme si rien ne se passe dara xewul woon ñu dem ba egg ci ay bakkan rot mu doog a am ñu ne maanaam médecin après la mort la rek. waaw waa analyse dama koy partagé ak ñi ko wax. pour dire vrai xam nga Lamine moom bu waxu dëgg wax leneen. c'est-à-dire bu fekkee ni war nga mën a régler benn problème. amoo lenn looy xaar pour régler ko soo bàyyee ba lu mel ni am nga soo ko wootee di waxtaan. ñi naan c'est trop tard wax nañ dëgg. Mhm. ñi naan c'est trop tard très sincèrement wax nañ dëgg. Mhm. donc président amoon na beneen taxawaay bu mu waroon a taxaw. Mhm. boo xam ne si que bon peut-être bakkan du ci rot. kenn du ci gaañu kenn du ci loru coono ba fa am du fa am. mais su bàyyee nag ba nga xam ne loolu am na mu koy soog a réglé bon parce que problème moom lu yàgg yàgg réglé ko moo gën bàyyi ko muy perdurer. mais nag mënoon nañu koo réglé ci anam yoo xam ne si lii du fa am. di leen wax ni vraiment ah nit de boo amee yëfam. ni mu ko bëgg noonu nga koy doxale Mm-hmm. mais comme état moo nekk ci ñun ñëpp ni ma dégg rek réglé leen problème bi. Mm-hmm. yàlla mën a jur jàmm. parce que bu état ne du ma def lii parce que gendarmerie laa ci bëgg a def gendarmerie sécurité la ngor ni déedéet suñuy doom dana war a jàng nañ ci def suñu def kon ñoom ku ku bëgg ku tëj maanaam ku. ku bëgg ku tëj voilà. ak ku ko wétali je crois que ni coow wóor leen a boole mhm. donc ñu ngi regretter la fa jot am di ñaan yàlla mu bañ amati coow li fa jeex quoi mhm. mais tey jii peut-être question la boo xam ne mais pour ubbee ko da am solo mais est-ce que tey jii ñi ngi jëm ci dialogue national ñi wax dialogue politique Gallo est-ce que nekkul point yooyu ñoo waroon ëpp solo ci askan wi au moment où président de la république waxoon na fi ci jamono ni bi Moustapha Souran di jiite foncier bi ni plent yi muy jot bu dee cent quatre vingt pour cent yi coowul suuf la c'est un maanaam c'est une bombe à retardement tey jii est-ce que nekkul ni tey jii lool moo jara sax toog waxtaan parce que li xew ci ngor nii tey jii ci benn bërëb loolu bul wéree réew mi kenn xamatul fu ñu jëm te bari na ci gox yoo xam ne tey jii ñu ngi jàmbat lu mel noonu est-ce que nekkul ni point yooyu moo lu ñu war a waxtaanee ci réew mi. non da nga ko ci ñambaas rek da ciy bokk xam nga réew mi boo ciy wax boo li ñu war a waxtaane réew mi lépp la war a waxtaane mais bu fekkee ni da nga bëgg a doxal li normal rek da koy ñambaas comme ñun ni du def di ci dugg ci problème mu dialogue bi mhm. woo nañu ci dem nañ ci mais bi ñuy dem yóbbu ni loxoy kese dañu ne ah comme li ñuy waxtaan réew mi dafa bari président lii nga junj des na loo xam ne buñ sañoon ko dolli ko ci Mhm. d' ailleurs loolu ci suñuy condition participation dialogue bi ci la bokkoon ba nga xamee ne ko wowoon nañ ñu demuñu. Mhm. bii nag bi ci président waxalee boppam nee nañ ko dinañ ñëw parce que toujours ma jël exemple ne saa njóogu bu fekkee ne daf maa invité suppu kànja këram. Mhm. fekk mu yarub xaj. ma ne ko saa sama rab moo ñemewul xaj xaj bi il faut mu jóge sa kër gi mu lànk bis boobu du añ ci waaye bu ñuy dox bu mu jël xaj bi déplacé ko ci kër gi kër gi dara nekku ci mm-hmm. su ma nee kaay añ nag bu dëgg yàlla boo xiifee war naa mën a añ mm-hmm. exemple boobu laay jël suñu diggante ak dialogue bi dañu mm-hmm. cee woowoon ñu ne ñun de conditions yi il faut que le ko pour ñu mën a ñëw wax ci dialogue bu sincère faale wuñ ñu ñu ne comme faale wuñ nag nan toog booba am na ñu demoon bokk ci dialogue ba mais ñun ñi nga xamee ne que nag ñooy càppaacule yi génn nan toog ne bokkuñu bi ñu demee nag benn moment ba nga xamee ne que la ñu bëggoon nangu na ko la ñu bañoon bëgg na ko mun ñu ah kon nag léegi kaare nga waxtaan loolu moo fa indi suñu tànk mais ci loolu bala ma ci ñëw. Mhm. parce que euh, c'est important euh, mais dama doon xaar dinaa am na ci personnalité bu ma koy xaar parce que ñu baal ma ci kàddu yi kàcc wu rëy la ñu kàccal. mooy kan soxna Mimi mais bala ma ci ñëw ma yegg ci yéen ba pare. Mhm. yéen da ngeen war a bokk ci ñu war a bind lettre. bon mhm. peut-être du ngeen excuse wala xamu nu ko. wala seen liggéey la non ma ñëw rek. ci surtout yow ci nga bokk loo wax ñu tontu la. merci beaucoup. lettre d'excuse adressé ko au parti démocratique sénégalais pour beaucoup de raisons parce que Omar man plateau bi yàgg naa fa ñëw samay moroom ñëw fi a chaque fois ngeen ni ñu yéen a ngi dil à chaque fois ngeen ni ñu wóolu ñu leen Macky Sall ñu dem benn moment ba nga xam ni que am na personnalité yoo xam ne yi ngeen doon jii ñoom ñoo ko doon def génn waxal ko seen bopp personne n'a analysé dans sa sens ba pare gën a dëgër bopp naan non PDS jege na Macky non non non non c'est-à-dire le président Macky Sall dafa tàllal loxoom ci woote dialogue ñun dialogue bi gis nañ ci suñu bopp ñun dañuy dem personnalité boobu ma lay wax kii waroon jiitu ci rajo yi demande excuse le parti démocratique sénégalais c'est Mimi Kakatar Touré mm-hmm. su ma nee Kakatar nag mooy day changé wu selon les les circonstances. Mm-hmm. Mimi lu ko neex la xam. Mm-hmm. Mimi lu ko saf la xam xamul dëgg. du ko wax. su ko doon wax mais nga yamale kilifa ngay waxal aussi. waaw justement Abdoulaye Wade kilifa la yaa ngi fàttali bi Abdoulaye Wade ñëwee nii day marche pour Karim Wade xam nga lu mu ko tontu. Hmm. na dem wuti avocat te bàyyi taxawaalu bi Abdoulaye moo gën a doon kilifa moom mi ko fekk ba Nations Unies sagal ko deux ans devant son secrétaire général. fekk mu toog may ma ñëw dinaa dinaa ñëw may ma ñëw boobu. donc kàkkatar c'est caméléon mooy kuy changé. mais boo c'est-à-dire non raw na loolu sax lim mu def mu ëpp loolu. parce que defuñu ko ñu ko da koo def réew mi dinaa ci ñëw benn par benn mm-hmm. loolu moom maa ko wax maa ko assumé mm-hmm. c'est-à-dire ki la fekk ba ci digg kilifa di la làkk wolof fu la ci tugal xam nga ni sàng na la sutura sutura boobu sàng ko Abdoulaye Wade par contre lu ko sànq la doon def lu ko sànq la doon far mu këpp ci kawam un parti comme le parti démocratique sénégalais 26 ans d'opposition jiise li mu jiite réew mi am lu mu ci def ñëpp xam ko ñu war ko jox respect nga ne ko yow yaay co-organisateur bi dialogue nekkete ña ko ko organiser ñi ngi toog ak te yaa ngi ci ñoom te ba nga fa demee la coow li bari ñu génn wax la la même chose boo dee gor soo honnêté honnêteté intellectuelle dafa laaj nga génn mais attends day tax sax ñi nga àndal ñeme la man maa yëkkati woon lii mais je vois que ni def naa erreur je vois que ni juum na du def dara lu koy réel mais nag bu fekkee ni li réy ci yëpp sa musóor la sa sagesse réyul sa humilité réyul musóor rek nga ëppale nit ñi ça veut dire que ni ci yooyu rek nga mën a dal quoi ci erreur yooyu nga mën a dal ah, nous demandons des excuses yoo xam ne si que ñun la koy jébbal parce que tooñ nañu te yàgg na ci des excuses publiques ah bien bien sûr ah, waaw c'est que euh, saa yi galo yaa ngi dal ci Mimi euh, mais est-ce que du Mimi est-ce que est-ce que du Mimi dafa waaw d'accord waaw mais est-ce que du Mimi fi mu bokk daa xasan parce que yéen da ngeen ne ndaje mi fi gars yi doon créé da ngeen ne du ngeen fa dem ndax mimi moo tax du ngeen fa dem wala waxu leen ko woon. non loolu ah non dama ne ma déglu rek ba ma pare. da ngeen ne woon du ngeen dem ca ndaje man ndax mimi mu leen teg. ça dama mimi mais mimi léegi ngeen dem di dialoguer ak ki nga xamante ni kii moo nekkoon patron mimi lépp loo xamante ni bi tey euh, mimi na ko doon topp kooku la. léegi nan ngeen bëre yéen fi mu toll nii maanaam li ngeen bëgg a wax mooy du lekk mbëtt tey naan ca ñeex sa daanaka loolu ngeen def. exemple la lay jox. waaw gis nga àdduna bu fekkee boo bëggee analyse doo juum rek. da ngay indi contraire. c'est-à-dire boo amee plus. fexeel indi moyen ñoom ñaar ñu mën a maas. c'est-à-dire Mimi ñi li ngeen ma wax ne dama koy tëkkaleeg Thierno Alassane Sall man je connais pas Thierno Alassane Sall. Mm-hmm. mais c'est une personnalité personnalité bu mu fonk ndax ay valeur c'est-à-dire moom ak Mimi Touré la Macky Sall yilifandoo. Thierno Alassane Sall fi ñu ko dugaloon dafa waroon a signé ay contrat moom ci xalaatam. nee na sama conscience mayuma ma signé lii parce que baaxul ci senegal mu bàyyi. mais Mimi bu toogee ba tey mu naan Macky Sall ma def loolu lu tax jëlul posture Thierno Alassane Sall boobu. nan waxante dëgg. non man waxuma ñu man yéen laay wax. waa ñun ko waaw waaw xam nga c'est que. bu orienté na waaw pour pour. orienté wu ma li ñu metti ba bëgg laa non daf may turé c'est-à-dire li ñu metti mais Mimi moo nekkoon premier ministre. waaw waaw ma ñëw rek li ñu metti Abdoul Mbaye Abdoul Mbaye. waaw je suis ah, leen fi coalition ak Abdoul Mbaye. ma ñëw rek. waa léegi xam nga xam nga bu fekkee. boo dogot dogotee kilifteef gi. Hmm. bala nga yegg ci Macky day yàgg saa li mu wax ci laa d' accord ah. mook Abdou Mbaye yëpp benn kilifa rem c'est Macky Sall ah. cest à ñun Macky Sall bis bu rafet la ñuy xaar ak moom hmm. bi mu jekkee pour ñu ëppale pour ñu xañ ko assemblée nationale bu paisible hmm. def nan ko hmm. avec suñuy naw la politicien on l'a fait parce que boobu moom lañ visé mais bii ñu jëm nii on a avec une personne boo xam ne dafa doon glorifié wu lenn il faut ñu bàyyi ko ak àdduna PDS maa tëj seen bàyyi ki mu ko wax moo ko wax c'est la réalité man maa fi tëj doomu président maa njëkk a tëj président la yooyu mu doon wax parce que lan dafa bëggoon bokk ci les cent femmes les plus influentes de l' Afrique voire dans le monde fan la ko jaar ci Abdoulaye Wade c' est peine perdue. mais cent et quelques milliards la lan lan doon toppee Karim aussi loolu duñ bàyyi nit mu fob ko ba pare ba cent et quelques milliards. ça c' est une hmm. mais cent trente huit milliards deux cent milliards moo ko ëpp. mais su bu may xëccoog yow cent trente huit milliards ba am deux cent milliards gongo laay wax. dëgg la cent trente huit milliards yow ci kees gi la ko Karim jëlee. néewoo fii la ko génnee néewoo Karim dafa jënd jox ñu facture bu matul néewoo Karim dafa jënd dafa jël euh, par exemple benn caméra ne nangam bi la ko jënd fekk da ko surfacturé non non non non yow enregistrement ko tëjee ba pare amande ko loolu. ma ko créé du dommage am rek. ba léegi d' accord naa de. mais xam nga daal xam nga doom ji judd na. non non c' est ba ko fa moom mu ñëw may ko ay tànk muy dox. kon kay moo jur doom bi sa loxo bi ci yow la bokk bu la sa xel dimbalul ba boo ko la ko sant mën ko def kon ma raay kii en direct sama loxo raay ko ci lex en direct. non non non mën na cee nekk xam bu sama xel nekkee. sama xel moo may jàmbur yi sama xel moo may yeddaat ba du ma def lu ma war a def. sa lex c'est-à-dire. <laughs> yooyu li ma li ma bëgg foofu li ma bëgg wax foofu eh. mooy que ni même les juges ah. eh. yi nga xam ni que jugé nañ Karim eh. ont senti que le ministre de la justice am na benn haine viscérale envers Karim mais fàttaliku ngeen fi bi seen yaram day daw yéen jigéen ma ñëw dinaa ñëw rek banaa ñëw benn benn may mag si ci kii naa yegg si kooku Antoine Diome c'est-à-dire ah. antu ci Antoine substitut la woon ah. mi ngi ci rôle bi mi ngi ci joué li ñu ci war a wax moom dinañ ko ko wax mhm. c'est-à-dire pàcc ku ci am mhm. di nga ci am ci wàll wi fekkee ni Macky Sall nga féete di nga am ci ci ci statut Macky Sall am ci statut Mimi Touré am ci statut Antoine Diome. lii rek moo tax kenn waru leen a dénk réew mi. parce que li mooy wane ni yéen bu leen dénkee da ngeen di fayantoo. parce que yéen ngi nekk opposition di régler ay compte mais yéen ku leen dénk réew mi. waaw ngeen fi nekkee defanteeg. may mu ñëw keneen ak ñun ki ñu yaakaar mu yor réew mi. Hmm. xanaa liir nga sa lettre de Korité hmm. nee na talul fayantoo du kuy fayantoo. Mm. si les Sénégalais le font confiance il ne fera que travailler. j'ai l'habitude de dire. mais li ngeen Karim Wade non ça xam nga dafa am yoo xam ne. Mm. Euh, euh, day day am ci fulla ci doxalin. c'est-à-dire fulla ju bari mën na yàq mais ñàkk fulla aussi ba mu bari mën na am leen lu mu ñun li ñu joteeg Mimi Touré intérêt Sénégal lañ ci njëkk xool mooy lan yow nee nga Karim 131 milliards lañ ko amande. Mm. mais ci biir loolu nee nga ñoom ñi ma jàppoon kat fexe naa ba am ci ñoom deux cent milliards ñu ne àll nga ne nekkul sama gafaka mi ngi fan euh, loi de finances rectificative Moustapha Niass may ma ñëw rek Moustapha may ma ñëw may ma ñëw tam Omar Moustapha Niass ku ne xam ne ni fu mu waxee ñëpp dégg ko parce que yàlla mooy nokk fasaa ci baat mu yemu fa mhm. dafa utiliser nopp yi ni dégguma gisuma deux cent milliards léegi Mimi Touré mi mu jël na ko li tax du ngeen di interroger du ngeen ko laaj xaalis boobu en tant que sénégalais. vous vous intéressez au centre. mais moom heure dañuy renvoyer ci Macky maanaam dama bëgg. dañuy renvoyer ci Macky ne faut pas il faut pas il ne faut pas vous intéresser il ne faut pas vous intéresser ci 138 milliards yoo xam ne du dommage intérêt amande la. Mhm. te ngeen xam ni justice bi jaarul yoon ba def loolu buntu lu wut ak 200 milliards yu palpable yu Sénégal moom waa ji ndaw si ni jël na ko. kooku da ngeen ko war a bokk ci ñu koy posé question yi mimi eh waxal lii bala ngaa dem yaa fi newul lii am na anamu. question boobu du ci def ko ko mais da leen renvoyé ci Macky Sall. non non non attends attends non non non loolu loolu du parolu Macky Sall parolu Mimi Touré la. xam nga c'est-à-dire mënta mënta accepté yéen PDS ay rancunier maanaam li kii li la Omar wax loolu moom mooy feeñ quoi man da yéen ñëpp da ngeen a bañ Mimi man c'est que pour man yéen euh, président Macky Sall mi. da ngeen a xam ni bu dut moom du ngeen dem élection moo tax ngeen di maslaa waaye yéen ku leen fi jox réew mi ëllëg dàggasante ngeen fi nekk ku xuloo juróomi at yi ñëw ci kanam ci loolu ngeen di def parce que moom ngeen wane non mais parfois parce que ki nga xam ni mën ngeen a xuloo moom yéen a ngi xuloo moom ni mi ngeen di xuloo xam nga xam nga man sax dama jàpp ni ngeen a bokk ci ñi contre PDS jërëjëf si waaw xam nga lu tax waaw parce que day xaw a que yéen budul kenn ku nekk PDS gu fi nekk damay sentir yërëm ay Karim Wade li ñu ko def du yoon mais kan moo ko def <laughs> c'est Macky Sall en réalité. <laughs> wala comme moo ko def te yéen yow li nga wax léegi dafa am solo bu dul moom du ngeen bokk nee naa la ba tàyyi ñun ñu bokk ci dialogue gu Macky Sall ajuwul ci son ci euh, ñu bokk ci élection yi ajuwul ci dialogue gu Macky Sall. Mm. les Nations Unies groupe de travail des Nations Unies. Mm. dafa am lu ñu joxe Macky Sall entend respecter ça loolu mooy dëgg. deux magistrats yi fi jóge woon dem au niveau des Nations Unies engagé nañ la signature de Macky Sall. après na leen mais la signature de Macky du Sénégal est toujours engagée là-bas. te engagé ku leen dàq Macky Sall. mais yaa ngi bëgg a jëm fi ma jëm. Ah. te gis nga li wér ba wér mooy la signature d'un pays si c'est engagé au niveau des Nations Unies président bi xam na fan lay jaar ba réglé ko léegi nag comme ku ne xam na fi ngay jaar ba toj sa bopp gi nax fan la mën a jaar pour régler problème mu Karim bi ñu ko ko waxee ni ko wax wax ci. léegi nag jataay bi nga xam ne que mën na ci wax sukk teewutu yóbbu say oom ñun on va avec nos propositions ñi ne duñ dem kenn néewul demuma waaye nangam ñi ne dana dem dana dem rek la wax ñun ñooy le seul parti bi nga xam ne que dialogue dialogue dafa nekk suñu ADN parce que dialogue moo nu may lim ñu may opposition lan ngeen proposé amuñu proposé non mais bien sûr lan ngeen proposé benn proposé na fichier électoral bi euh, audit audition bi ñu ko def bi passé baaxul et puis loolu yàgg ngeen ko wax moom très bien et puis euh, Union européenne rek moo ci bokkoon mais cette fois dañoo bëgg euh, les États-Unis bokk ci pour mu gën a fiable wax nañ ko ni ko parrainage bi dafa mel ni da nga ciy jël pour tànn kooku na dégg bien avant euh, clôture ku ne xam ne bi clôture inscription yi suñu proposition non non non suñu proposition moo doon ñun gisee affluence bi ci bureau d'inscription yi prime votant yi am nañ yéene bii fois bokk ñuy fa seen réew nan prolonger date bi bi ci des nag te am solo mooy condition yi nit ñi nekkoon bi ñuy bi ñuy inscrire waroon nañoo fexe ni mu deñ pour nga xam ne que dootoo dégg nit mi ngi rang pour voter wu ba faatu ak yoo xam ne si bari na bari boo xam ne si ñun dañ ko yóbbaale muy sunu yóbbal révision procès bi loolu xam nga loolu mooy sunu demande bi mu ñu ne si ñun dañ ko ni bëgguñu amnistie parce que amnistie du mun c'est-à-dire du du jaage ne bu dul amnistie rek duñu bokk ci élection yi élection yi dañ ciy bokk par force parce que en réalité diir bi ñu tëjoon man dama mere woon avocat Karim parce que je disais mais pourquoi ñu condamne Karim après les avocats ñu parce que boobu nekk te xam na li ñuy def parce que état euh, euh, droit aussi parfois dam yee la quoi ñoom ils sont voilà ils sont restés tranquilles gars yi naan fu nekk ñu bàyyi ba cinq ans yi yàq le vingt le vingt deux mille vingt ñu def seen seen communiqué xamal ni maintenant Karim a retrouvé ses droits civiques mm-hmm. mais galo yaakaar nga ni Gallo Karim dina ñëw Sénégal gii. bokkuma ci ñu ko yaakaar dama bokk ci ñu koy liggéey bokk ñu koy togg. muy ñëw nii di profité bokk ci élection yaakaar di loo xam ne si di togg yeex naa kii ah, xam naa ci lu jënd baxagul baax. bu naree neex bu baxee xeeñ mais xeeñagul xam nga nag problème bi tax mooy tax mënagu a xeeñ. waaw mi ngi xeeñ ñi ci biir gi. ñun ñuy xamb taal bi bi ñuy xeeñ. mais ñun war nañ koo a neex. ñu kii bi ba mu baaral dana yem ci bi ñëpp dinañ ko dégg. mooy profité di am lu may lancé man ak suma benn mbokk. moor bopp ku ñuy wax bawol bawol. sama xarit. waaw sa xarit boobu nag ku bëgg Karim bëgg Abdoulaye Wade. Ah. ay weere ngi ñu nekk ci loo xam ne si. Hmm. yàq ko moo des. damay profité pour wax ñi nga xam ne que ñi ngi ci gox yi duñu xaar. Hmm. ñun man ak moom taxawal na loo xam ne si ça veut que ñibbi si lay doon. ça veut dire que dolli yaakaar lay doon su ma nee ñibbisi mooy. Mhm. am na ñoo xam ne dañoo dem ba gisatuñu Karim xaw a jaaxle. Mhm. ñu wan ñu ginnaaw. ñun danañ def lu tax ñu ñibbisi. am na ñoo xam ne si yaakaar moo taxoon est-ce que Karim dina ñëw yaakaaru ni dina ñëw par ma voix dina la wax ni dana ñëw te la leen di indi. man ak ña koy organiser non non non ba léegi joxewuñ dal. loolu ngeen waxoon cest à après koor gi. Sidi Diop a génn way naan après. koor gi non non da ngeen ne woon ak koor après koor gi Karim dina ñëw. waaw mais après koor gi nag. c'est bu koor jàllee. après koor gi après tabaski tamit. après koor ne parce que koor jàll mais dialogue dialogue bi yéen a wax dialogue Macky Sall mais dialogue Barthélemy moo ko woote loolu leen ut si dialogue Barthélemy. mais mais histoire boobu lan ngeen ko lan ngeen ko dundee. histoire boobu nag yéen ko war a réglé. yéen ñi gëmoon ni dialogue bi ñu ko organisateur la. Hmm. si si que que est ñi gëm ni Barthélémy ko rek parce que Barthélémy dafa wax ay waxam rek mais est-ce euh, ñi gëm nañ ko. Sadio parfois gars yi lay fonk dañ lay gëm parce que say wax ngay wax. kan yow man mais ci biir say wax dañuy xam ne dëgg la. non non Barthélémy man est-ce que. non non non sax a déglu am na ñu ko gëmee noonu. Hmm. tey nag Barth man ànduma moom. Hmm. lu tax non sinon ànduñu il est du PS moi je du PDS. la. song na fi Ablaye ma dugg ko ba naaw mm. malgré les maires Dakar bu songate Ablaye ma dugg ko. Mm. ça veut dire que ànduñu. Mm-hmm. mais nag wax dëgg du wàññi wërsëg. dëgg la Barth moom ku ne xam ne ni il assume. Mm-hmm. ku ne xam ne ni ñeme na kàddoo. Mm-hmm. loolu forum la. loolu. ñoo bokk mbuus waaw très bien. kooku nag bu demee booy wax loolu non non du question bo du question du question non du question bokk mbuus. <laughs> xam nga xam nga du question bokk mbuus. parce que la déclaration de Barth. Ah. Ah. daf ñu fekkoon ci mbuus bu nu ñu tënk. <laughs> xam nga mbuus la ñu fekkoon. Ah. mbuus mu Mimi Touré nal ba mu nekk mu dugal ñu tënk di boole ñox Sénégal. <laughs> Hmm. loolu leen euh, léegi nag comme dugal nañu ci mbuus moom. ñun ñuy xool fu ñu jaar ba génn mbuus mi. am ku ñëw ne nu cet ne ñu ci PDS kat seen yoon nekku ci. Mm. li ngeen ko koy jiiñ mën a. maa ko def. te waxtaan naa ci ak diw. Mm. waxtaan ci ak mm. diw. waaye nag yéen du ngeen di diw ak diw li gars yi du lox PDS du ñoom ngeen jéggalu ñu ñu baal leen. Mm-hmm. surtout yéen chroniqueur yëpp nag. mais gars yi amee Sonko dégg nga li mu mujj wax nee na dialogue bi li ko lal yëpp mooy pour mu bañ a doon candidat mais aussi ñi ko seq ñëpp maanaam jëmmam moom mooy seen problème. mais nag li man damay wax damay wax nii. Hmm. Euh, génn Sonko suñu hmm. hmm. lan ci waxoon du waxul làmmin c'est une réflexion profonde. na ñëpp bokk. ku war a bokk nga bokk. ku warta bokk bu mu bokk am na ñu ko doon jaxase sama wax foofu. su ma waxee foofu dama wax ni man en deux mille dix neuf dañ ni ma yow sa candidat bokkul Karim ma ne fu ngeen ko teg ñu indil ma ay article ber ma bokk ma. article boobu indiwoon sama problème moo ko réglé waat muy ñaari article L29 ak L30. loolu moo tax ma bokkaat. moo tax ma ni comme newoon nañ warumaa bokk bale paase bii war naa bokk naa bokk. ñun gëmuñu tamiser ay candidats gëmuñu ne di jël ay candidats di leen séparer ci ñu la neexee. non non on veut pas ça. mais nag réflexion parfois day bipolaire. bu fekkee da nga jàpp ni dialogue bi. nga bañ a bokk ko waral. est-ce que doo jàpp ni dialogue bi xëy na ñi nga bëggoon ñu bokk war a bokk moo ko waral. pourquoi je dis ça. Ousmane Sonko bëggal mu sax lu ñu bëggalul ñun. mooy amnistie bi daf ñu ko bëggaloon te bëgguñu ko. noonu moom musul anti amnistie moom révision article. non non non 29 30 31 ci la ci la ne. ba juste après mais sa dernière sortie lu mu war. tu es un fervent défenseur de Sonko. waaw ma waaw. je le défends je le défends comme ni mu doon défendre. Karim Wade bi may nekk réew mi PDS. ba yéen ñëpp ca ngeen jaaree nekk sama xarit. kon réew mi PDS loolu léegi Karim xewi na Sonko moo xew. on prate ma ñëw. léegi non cest à wax loolu. Mm.

noonu laay taxawee Sonko parce que li may bañ mooy injustice bu la ko tegoon sax ma défendre. waa léegi te yow na nga taxawee Karim Wade dara changé wu ci dañ koo tooñ ba léegi. mais kooku ñu tooñ moo ni tey war naa bokk yow mi loolu arrangé wu la. kon yaa ngi changé. bu la doon tuuma tey maa njëkk non non non du question tuuma mais ça li ma wax léegi bu ko mm. weddi. lu tax doo ko weddi mooy. quand mm. tu défends quelqu'un mm. il faut que ça soit défendable ci acte boobu. Mm-hmm. parce que li ma la ci internet bi. Karim Wade ne bëggul. ma ne malgré tout nan ko ci def. c'est-à-dire xam nga nit bu fekkee da nga ko ñun. bëgguñu mais sa dernière sortie Sonko la la wax. non non non dire bu fekkee ni. da nga jëli bee bàyyi bi mu jox non boo nee boo nee dernière so non waaw kon léegi ban laa ci war a gëm dimbale ma ci. tànn sa bu la neex. nee na ah nee na. Ah, tànnal bu la ah, arrangé rek man weesu naa foofu. Mhm. moi je suis un de haut niveau. ku bokk mhm. ci parti di xalaat li ma arrangé. bu dee damay tànn ji lu ma neex. kooku mhm. maa ngi far farloo du ma ko def. je pense intellectuellement. damay xool ni. bu ma jënd kilifa demee ba ma yóbbee sax tànn bu la neex kilifa googu attention damay def ndànk ci moom mhm. kilifa du ma yóbbee tànn bu la neex kilifa dama yóbbee ci tegu ci yoon mhm. foofu lay jaar c'est-à-dire pour dire vrai dialogue bi bu fekkee ni loolu da koo lal mhm. yow nga bëggaloon nit lu mu bëggul waaw ah, mais ci dëgg dëgg dëgg warta am xuloo warta am xeex waaw léegi ka lan ngay tàggoo <laughs> non doylu ma xam nga nag man affaire yi loolu dafa neex nag non non c'est-à-dire euh, contact temps bi nga problème temps la dafa si ma bëggoon wax lépp sax dafa des waaw des na kon bu ko beneen yoon parce que temps bi jeex na non kontaan tey da ngaa déborder sax kontaan vraiment ci yéen mais mais ça dafa ñu tol benn émission man ak yow ñu tuddee ko xuloo bi xuloo bi wala defante non du xuloo nag defante wala duñ defante ba léegi duñ defante parce comme bu fekkee ni buñ jàkkaarloo li ngay wax dafa am fu ma koy basé wu benn euh, séance du xuloo doom parce que li ma gëm laay wax léegi nag bu fekkee ne bëgg a weddi sax du fa teg dara dañuy xuloo waaye lu ma sa weddi say wax danaa fa teg dara sama wax boo ah. ma sama grand la bul yàq bul baal nga dem buuba sama sama sama nami sama sama frère mais en tout cas kontaan naa kontaan kontaan naa ci yéen li may wax rek nag ah, parce que man moom ma ko dóobin ma roppin la ko su ma ñëwee li ma naq rek dama koy wax teewul Euh, teewul vous faites un très bon travail. am ngeen droit soutenir Sonko. Uh-huh. man am naa droit soutenir Karim Wade. Hmm. cest ci ci ligne quoi laay bëgg a wax. Mm-hmm. Hmm. mais vous faites un grand travail parce que seeni analyse je l'ai dit un jour à mais bu ñu pëtaxal fenn naan ñu am ngeen droit sur sur soutenir. non pëtax ngeen non non non pëtax ngeen ñu parti politique non non non on défend la vérité. non non yaa ngi dégg déglu ma yow politicien nga bu ñu buggal ci benn camp naan ñu ay. mais ça li ngay wax noonu. c'est grave yéen ba ci seen. directeur ma ne ba ci Moustapha. non baal Moustapha non baal Moustapha non may ma baal Moustapha baal Moustapha non sax nga jéggalu ndax lii nga wax waaw li nga wax il faut nga bind lettre jéggalu waaw jéggalu baalu diffamation waaye wuy ma galo jërëjëf yéen ak seen chroniqueur PDS rek ngeen ko merci jërëjëf ba pare di di xalamal Sonko man ci yéen laa bokk yow xam nga loolu ci yéen laa bokk mais nag mais nag ngeen baal ma rek non non non du xaabaabal yaa ngi dem c'est-à-dire pour dire vrai ah. je m'adresse à Sonko Mm. Abdoulaye daf ko mos wax lu mu waxul sax doomam. Mm-hmm. sama ndaw nga may fàttali. gis nga bu ay nit. Gallo temps bi jeex na non non mais c'est important c'est-à-dire bu ñu ay nit jaxase ñun politiciens yi bu ñu ay nit jaxase. ñoo bokk ñoo bokk objectif suñ ko bokkee nag bu dugg ci yenn analyse yu nit ñi ba mu jaxase nit ñi parce que ñun li ñu metti man bokk li ma metti mooy que ñun ak suñu nombre de voix ñu boole koog bu Sonko am nañ am ci député Mimi Touré contre ko ci temps boobu di ko xeex suñu mën na jëndee Mimi Touré ça me fait mal Mimi Touré dafa bind ne dañ koo menacé day soob nanu wan tour nanu wan dara defu ko ci même moment bi même instant bi Ousmane Sonko di la défendre physiquement ci lépp ma mhm. alors que ñun ñooy ses principaux alliés bu fekkoon ne daf ñoo Mimi da koo jaral mu ñëw ànd ak moom waroon na ko jaral mu jóg waxtaan ak ñun pour li ñu metti jeex jërëjëf <laughs> moom ba ne mimi mer loolu ne ah waay waay PDS ak mimi jërëjëf ay PDS ak mimi merci beaucoup